mbokku téléspectateurs yi ñu ngi am mbégte ak contentement di àddu ngeen di teewlu ci seen télévision Equivox TV di leen wax ni dellu siwaat nañu tey ci altine bi ci seen biir émission Vox Arena di la voix de l'arène tey nag mbokk yi ñu fas yéene waxtaane actualité wu làmb actualité wu làmb nag gis nañu ci week bi ñu génn l'association des lutteurs en activité ci njiitalu Gris Bordeaux dem nañu ba ministère de la santé daal di fa jébbal ay dons yoo ama am solo seen mag Yaxya Jóob Yékini daal di leen gunge ci jàppandal ki nga xamante ne moom mooy ministre des sports jàppale leen aussi ñëw dooleel leen daal di jàkkaarloo Abdoulaye Diouf Sarr daal di ko jox li nga xamante ne moom mooy seen contribution ñoo mbër yi waaye gis nañ fa aussi sunu papa Bécaye Mbaye comme tous les jours mu ñëw jàppale làmb comme ni mu ko tàmm di defee waaye mbokk yi bu ñu jógee ci loolu aussi daañu ñëw ci actualité wu li gën a fës ci actualité wu làmb mooy sunu papa Mor Nguer mi nga xamante ne moo fi bàyyeekoo ñu ñaan yàlla yàlla jéggal ko ay bàkkaaram xare ko aljanna moom mboolum jullit ñi mu fa fekk. actualité wu làmb mooy Boubacar Niang lim ñu indil tey ci altine bi. moom mooy dafa def benn njàngat bu ama am solo ci ki nga xamante ne moom mooy rëg-rëg rëg nekk mbër moo xamante ne kenn dootu ko présenté ci làmb gis nañ ni li nga xamante ne def na ko ci lutte simple ba dugg si ci lutte avec frappe mu toll nag ci huit ans boo xamante ne dugg na ko ci làmb mais déggagul muñal maanaam kenn daanagu ko te bëri na ay combat yu ama am solo moom ki nga xamante ne moom mooy rëg-rëg ñu gën a yaatal ci rëg-rëg mbokk yi juste di leen fàttali rek ci xeex mi nga xamante ne àdduna def cee toll rawatina sunum réew muy Covid 19 di ñaan yàlla yàlla jële fi jàngoro bi waaye mbokk yi ñoo ci war a gën a farlu di gën a respecter mesures d'hygiène yi gars yi joxe cest à chaque jour wala di góor góorlu tout le temps di raxas sunu ay loxo hmm, di toog sunuy kër période couvre-feu bi yooyu mbokk yi ñu di ko respecter. yaakaar naa buñ ko defee ànd ak ñaan yaakaar naa yàlla mën na fee jëlee jàngoro bi ba kenn ku ci nekk dellu ci say activité waaye mbokk yi ñu ñëw ci ki nga xamante ne moom mooy rëg-rëg rëg mbokk yi comme ni ngeen ko xamee ñu koy woowee Omar Kane mu nekk foofu ca Caaroy mu nekk xale boo xamante ne bëri na fi ay combat yu am am solo bi si ñu ci bëri di fàttaliku mbokk yi moom mooy bi jógee ci combat am ak euh, ki nga xamante ne moom mooy Gris muy daaw mu daal di wone exploit bu extraordinaire gën a d'accord lool làmb ji ñëpp xam ne rëg-rëg ndaanaan la mais affiche tey bi li Boubacar Niang wax mooy rëg-rëg peut manger à la même table que ay ñoom Balla Gaye Modou Lo muy VIP yi parce que si ñooñu la teg gëtam yi Reug Reug ne récemment suñ ma joxee sàccees damay organiser sabar li tax Reug Reug ñemee noonu sàccees mbokk yi lu am am solo la Reug Reug bëtam yépp sàccees la ko teg gis nañ ni ñu proposé ko fii ki nga xamante ne moom mooy Malick Niang mais Reug Reug bëggul li tax rëg-rëg buggul bëri ki nga xamante ne moom mooy Malick Niang nga xamante ne moom it benn defet la am ci làmb mu daan sàccees Thiès nga xamante ne moom la rëg-rëg di visé lan moo tax ndax Malick dóor yee tax wala Malick Niang li mu tardé la tuuti ci làmb rëg-rëg lan moo tax mu jël ay bëtam teg ko ci Sa mbokk yi lu jara taxaw seetu la ndax lu logique la wala du lu logique ñu leen ci xaar ci commentaire yi lan moo tax rëg-rëg ki nga xamante ne moom mooy François Émile Gomis Fran lan moo tax Reug Reug bugg koo jël ndax daf koo raw ci làmb parce que boo xoolee Reug Reug dafa xaw a am lu mu nirooleeg Franc mooy dañoo niroo li ñu def ci mbapat waaye ba tey bu ko neexee mën nañ koo nangul moom Reug parce que ki nga xamante ne moom la Franc mujj daan muy bébé Saloum Reug Reug na ko bu yàgg Reug Reug jóge na ci ay combat yu ama am solo mën nañoo wax ni ku daan bébé Saloum daan Elton daan Gris neexul ba neexul doo neex a bañ donc ci biir loolu ñi nga xamante ne ñëw nañu euh, ci question yi ku ci mel ni Sawru Fall nee na képp ku bañ a jël regret guddi yi ñu toll da ko ragal parce que koo xamante ne ba tey amagul défaite huit ans treize victoire treize victoire la am toog huit ans daanuwul ñaari sans verdict la ki nga xamante ne moom mooy rëg-rëg am yaakaar naa euh, ñaari sans verdict yi mu ngi ko am ci digganteem ak Pape Yékini ak Clinton. bu leen fàtte ni ki nga xamante ne moom mooy rëg-rëg euh, moom la ñu mujj fal ci li nga xamante ne moom mooy ANPS 2019 meilleur lutteur. sans frappe moom lañ ko fal moom nga xamante ne moom mooy rëg-rëg donc carrière mbokk yi permettre na ko mu war a mën a bëre ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kaw donc ndax ki nga xamante ne moom mooy bombardier mi ko nangu woon a tàllal loxo bombardier bi ñu ko fiy dégloo ne woon na pare woon na pour tàllal ko loxo donc yéen ci diggante rëg-rëg diggante rëg ki nga xamante ne moom mooy bombardier wala wala Tafatine ah kan ngeen gën a gis Reug Reug moom la war a bëreel digganteem ak Lac de Guiers wala Gris Bordeaux wala Balla Gaye <laughs> ngeen gis ni Reug Reug moom la ci war a mën a bëreel donc moom mooy question yi nga xamante ne moom Boubacar ñaa indi na ko ñu déglu ko rek moom Boubacar ñaa lan moo tax mu indi njàngat boobu ñu dellu si waat. Euh, di rafetlu bu baax seen liggéey euh, jot naa effectivement sa questionnaire bi euh, waaw effectivement man a article boobu li may inspiré si boo xoolee rëg-rëg day mbër boo xam ne boo xoolee at yi mu nii yëpp dafa nekk di def ay performance yu am solo si làmb boo xoolee moom palmarès rek fu toll mi ngi si toll si treize victoires ak deux combats sans verdict nga gis ne bu duggee si làmb léegi matagul huit ans nga xool ne aussi si wàllu euh, physique si wàllu technique si wàllu tactique nekk na mbër boo xam ne wax dëgg yàlla eh, eh, am na qualité yëpp pour war a mën a eh, jànkaarloo jàmmaarloo ak yaay nga xam ne tey jii ñoo nekk ci kaw làmb ñoom Balla Gaye ñoo ñoom yëkki bi ah ne doo matal donc pour dire que ne Reug franchement am na ak yëpp yëpp pour mën a am chance bëree via bi effectivement si question yi euh, indi nga lan moo tax euh, mu mu mu bàyyi fi ñu mel ni ñoom franc waaw boo xoolee boo comparé ñaari palmarès yi da gis ne franc ici effectivement invaincu la comme comme Reug maanaam ay mbër lañ yoo xam ne euh, bëriwuñu amaguñu boog defet si lutte avec franc te boo seetloo ñaari mbër yooyu aussi si lutte simple. voilà mbokk yi kookoy Boubacar Niang bu suñu làmb ñu di ko remercier bu baax a baax gis ngeen njàngat bi nga xamante ni indi na ko donc ni mu leen ko waxee mbokk yi li ciy neex ci article yi mooy di leen won yi nga xamante ne ñoom ñoo ko bind ñu wax ñu seen xalaat ci li nga xamante ne moom mooy euh, làmb ji mu ñëw ci rëg-rëg ci qualité yi mu am qualité athlétique yi mu am. aussi performance yi nga xamante ne def na ko ci làmb donc moom d'accord na ni dafa war a bëreeg VIP yi hmm? rawatina combat bi nga xam ne ñëpp a ngi koy plébiscité moom mooy fas à Sa Thiès donc boo xoolee Reug Reug quelques adversaires yi mu daan rek war na koo permettre mu bëri ak ñi nga xam ki nga xamante ne moom mooy Sa Thiès wala ñu nekk ci kaw ku daan Elton mënatuñoo wax dara. ñu ne déetuwaay nga daan Gris 2 mais ci ginnaaw tuuti daan ki nga xamante ne moom mooy jordaan boo xoolee Sa Thiès daan aussi donc nga xool ne ñoom ñaar xaw nañoo tolloo foofu donc man mi doon wax ki nga xamante ne moom mooy Franc mën nañoo wax ni d'accord mën nañoo tolloo dayu mën nañoo bokk li ñuy def ci mbapat waaye rëg-rëg lim koy rawee tuuti moom mooy adversaire yu mag yi nga xamante ne moom la rëg-rëg daan ki nga xamante ne moom mooy Franc Bébé Saloum la mujj daan waaye Reug Reug daan na Bébé Saloum bu yàgg donc Franc day gën a liggéey gën kaa fekk ji gën a nangoo jël adversaire yu diis yi nga xamante ne moom la Reug jël bon gis nañu ni euh, ki nga xamante ne moom mooy Sa Thiès Reug Reug moom mooy affiche bi nga xamante ne yaakaar naa bu woon tey làmb ji yëngu donc yaakaar naa Sa Thiès li ko waral mooy ci défaite la jógee am na ay bés yu mag yu mu rate donc moo permettre eh, mën nañoo wax ni Reug Reug di ko laajte waaye Reug Reug liñ koy gën a wax mbokk yi mooy mu gën a liggéey gis nañ ni état physique bi mu yor macha allah neexut ëpp doole fu mu toll nii neexut ëpp fit donc mu nekk mbër moo xamante ne aussi day mobiliser neex naa tëggal moom Reug Reug bu ñëwee ci làmb dana ambiance. dinañ indil public bu macha allah gis nañ keroog li mu def bi muy bëreeg Gris 2 donc ñu koy gën a encouragé di ko gën a wax na gën a jàpp ci làmb ji na gën a yokk entrainement bi xam ne li kay xaar du yomb parce que fi mu jóge la fi mu jëm dara seddu fa donc ñuy wax aussi ñi nekk ci kaw wala ñi nga xamante ne ñoom lay wax leen ciblé nañ ko jël rek parce que neexut a bañ amul dara loo xamante ne mën na nañ kaa bañ ki nga xamante ne moom mooy rëg-rëg alors mbokk yi ñu leen di gërëm rek di leen sant di leen fàttaliwaat bu baax a baax mesure d'hygiène yi nga xamante ne euh, moom la ñu autorités yi di wax ñu koy gën a respecté couvre-feu yi nañuy fekk suñuy kër ñu toog suñuy kër aussi di raxas suñu ay loxo bu baax a baax a baax fu ñu toll di désinfecté suñu ay loxo di voilà euh, càmmonteeg ñi nga xamante ne moom la ministère de la santé wax Cheikh Omar la woon ndax euh, équipe El Hadj Gris 2 Reug Reug arbitre na Gris day ñëw day ñëw ñu ngi leewtoo Gris 2 Reug la ilaha illallah Gris 2 Reug Reug la ilaha illallah Gris 2 Reug Reug jàppante nañu Gris 2 Reug Reug rëg-rëg ñoom ñaar ñëpp physiquement taxaw nañu waaye est-ce que ëppante nañu doole feeñagu fii poids feeñ na fi mais est doole feeñ na fi en tout cas Reug Reug mu ngi dajale ngemb Gris mu ngi dajale ngemb yi ñaari loxo ci ngemb waaye Gris it mu ngi koy jéem a daan daan na ko da daan da daan ah